ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare seen mbokk seen xarit Muxtaar Kebem Cheikh Saalihu Mbakke moo dellu siwaat ci émission bi ñu tuddee mawridu zam'an fi ulumil Qur'an daan jàll ci wàllug jàngale ay boole waaye di waxitam ci wàllug la biire tàmbali nuyoo beeg ziar bi nag ci alxalifatul aam lil muridiya cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko siyaare bu baax. di siyaare njabootu sëriñ bi ñëpp beral ab siyaare kum nuyoo it kilifa jataay bi di Cheikh Abdou Samad Mbacké ibnu Cheikh bu Mbacké di ko siyaare bu baax di ko jégglu di ko ñaanal di siyaare it bokk yi nga xam ne ñi ngi ci ëtt bi ñenn ñi di ay techniciens yore wàllu so toxndiku kàddu yi di ko leeral ak di ko séddale kaca ba ba di Sàmb ak soxna yu baax yu tedd yim bokkal liggéey bi di siyaare it euh, Cheikh Mahamadul Bachir Mbakke di koo xam ne moom li itteem mi ngi jëm rek ci topp ak rafetlu ak di taxawu liggéey bi nga xam ne mooy maa nafqahu hóot yardahu zumar naslukuhu jinni bi daanu yet boo nee yarda hoo daanu nga boo nee naslukuhu daanu nga boo nee maa nafqahoo daanu nga moo tax ñu ne maa nafqahu hóot yardahu zumar naslukuhu jinni bijj daanu yet assayxatu léwru njeego léwru mooy maska lonk njeego mooy juróom benn wala mu sayxatu yaar yépp a nga hóot fa axadathum sayxatu yat yaar xijri jenn muumin man axasathu sayxatu bajjob anka sayxatu liwru njeego tooy nama tooy tama naa dellu tooy njànnaay muy baat bi day tooy tooyiwaat ca kanam dellu tooy tooyiwaat ci kanam mu ne tooy na ma tooy tama naa dellu tooy njànnaay njànnaay mooy juróom-ñeent bokk yi yaxshawna naasa ka xasiyatillaahi yépp nga jigéen falaa taxshaw naasa waxshaw ni njoogu inchaa wa tansawna maa tushrikuuna lanaam shaqiyun wa saidun fa amma alladina shaquu hóot yashwil wujuha biisa sharaabu njenge washtaala rasu shayban mareem wa taxsha nnaasa wallahu axaqu an taxshaah ca laxzaab id yaxsha sidrata ma yaxsha najmi walaw laa kalimatun njeego juróom benn la ca ànd ak sadaqat juróom ñu ngi koy tënkee yuuhu yuuxu yuuhu patashu yunus hóod tahi tafsil shura jay naar akob naar juróom jay naar mooy ak raasayin ab naar mooy la xëcc raasayin ga liif ga kon jay naar la ab naar ñoddi ko ñu ne jay naar akob naar juróom ñu ngi koy tënkee mi nata zamifa minata samifa mina zahidina mbargaan tazawaru zakiyatan yëpp nga njenge min hamazaatee nga muumin fasajiraatee nga saabaam saabaam mooy saafaat zayyan na bayyan na makkan na ndende siddayat ngañ ji sidda laam ngañ ji mooy ak xëyin laam nga ci tege daa sidda ne ngañ ji sidda laam an yu xalla bi ma xalla yépp nga gàllaay xulla tay diihima nga njoogu min xillin yaar la laxraaf ak xijiri wa xallaxatee nga mbargaan xilla na nga xasri fa xulloo fa xulloo nga àqa sidda laam an yóbbu liif juróom juz an suu an husu an lu an kufu an an yóbbu liif kooku yuuf liif gi du ndéenéer day am ak liif sidda seeni kaaf sappo kaaf ga yi may bëgg wax yépp kaaf yi dafa sidda fukk la nag mu ne sidda seeni kaaf sappo la ilal xokkaami laan illa ma zakkaytum ak akkaaloona yépp a nga njoogu wakkal naa lan aam sikkiinan mbargaan sukkirata xijiri wakkila sujood rakkabaka len fitaar kalla ida dukkatil ma nga fajiri mun fakkiinaa nga kaw ni nabba sidda thamaana qad nabba ana baraan illa nabba tukuma mbargaan am lam yu nabba najmi tumma latu nabba unna tumma latu nabba unna taraabuni falama nabba at nabba'aha nabba'aniyal yépp nga taxrim yu nabba'oo nga qiyaama mu jeex xat tongoog taab njeego tong mooy xaalonk taa ga ca kanam taa marbuuta la muy taati daroo mu ne xat tongoog taat njeego mooy juróom benn fama xat bu kum yaar la xijreeg daariyaat maa xat bu kun mbargaan fama xat bu ka tëhi maa xat bukumaa nga xasas illa man xatifal xatfata baam baam mooy saafaat xam na mbokki asamadiya ñu bañ a xaabaabal kon taxaweeli foofu ndax mbokk yaa ngi koy topp sëñ daara yi dongay daara yi ak ñi nga xam ne it weesu nañ ak cëñ daara doonatuñ ay dongay daara waaye jëlee nañ dara ci daara ñooñu ñëpp itti woon nañ lii ñuy wax ndax rek doy na sëkk li ci Cheikh Saalihu Mbacké radiallahu anhu waxoon te waxoon ma ko nag nee na Sëriñ Tuubaa nee na bu alxuraan deeb tool boole yeey ñag bi koy tee ruur kon nag ku am sab tool ku nekk yaakaar naa ne doo ci bëgg a déggum ruur kon lii bokk na ci lii ñag alxuraan mbokk yi euh, kon seen mbokk seen xarit Makhtar Kébé moom Sëriñ Saalihu taxawaat na ci mawridu Zam'aan fi ulumil Qur'aan di taxawee li foofu ci wàllu boole yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah